coow li mooy ni état di soppiku ci réewum Sénégal turbine yéen a kaay naan maan moom Alioune Tine nden ma ngay xamle ci jéego yi njëkk yi nga xam ne régime bu yees bi ma ngi koy def Alioune na nga naan gannaaw ba ñu seetloo ab état boo xam ne état agressif la di caxat-caxatee doomu aadama yi salfaaje seen àq ak yelleef di leen tumrankeloo dóor leen tëj leen ci mim réew ñi ngi nemmeeku nag état boo xam ne mi ngi bëgg taxaw di état pastéfien direct news naan kon ak loo mën ci wax ña ngay organiser waat service bu état état bi moom présidence ak primature ku ci nekk nag di xam dëgg-dëgg naka ngay doxalee ak ban tànk ngay feccee turbine yéene kaay naan kon répartition des service lañ koy woowee décret ba nga xam ne juróomi fan ci weeru avril la woon xam le nañ ko ni ki démb ca palais lay toog moom président Diomaye di contrôler la ca primature waxtu wa xam ne nag ña ngay indi débat bi ci teewaayam am déet moom président Diomaye ci conseil supérieur bu magistrature moom président waxoon na fu mu féete ba nuppi direct news ma ñëw rek duo président Diomaye son Sonko organiser waat nañu nag ay service diggante palais bak primature bureau opérationnel bu suivi bu PSE ñu suppi ko def ko bureau opérationnel bu koordination ak suivi observatoire national bu investissement yii yépp nag léegi primature moo koy gérer ñu jële ca primature bureau bu prospective économique cabinet bu ministère bi nga xam ne moo war a topp PSE it ñu tëbal ko lii nag koon marqué jéego yi njëkk yoo xam ne ña koy def doxal nag projet gouvernemental bi waaye coow la mooy jéego yi wanewul benn yoon jéegoog moderniser ndax am na ci structure yoo xam ne la ñuy jël ci koppar bari na te ba tey ña ngi fay woy di fa samp ay DG waaye tam di fa taxawal ay coordinateur l'enquête ko di naan ko waxtu wow coow laa nga ca bor ba bor bi nga xam ne nag ña ngi koy woy di ko leb bitim réew yéen kaay bi naan man coow laa nga foofee turbine nan kon dara laaj ba samp kay moom moo di gannaaw ñeenti téeméer juróom fukk ak juróomi yi nga xam ne nañ nañ ko Sénégal lan moo tax nag Sénégal taamu ci JP Morgan moom ministre des finances ñu laaj ko nag mu leeral sénégalais yi taamu googee moom forum civil ak Birahim Seck sàkku nag ay gindi vox populi naan man en tout cas Moustapha Saare moom ma ngay wax ci mu réewum Sénégal naan la ñu bëgg jéego yeen cay def ña nga ca dañoo bëgg nag Sénégal moom boppam am ca gël guyam ci wàllu koom ñun sénégalais yi nag li ne suñu réew ñu jëfandikoo ko kenn duñu ko likkale ministre bi naan moo taxit slogan bii ñu naan doxandéem du tabax doomu réew mi mooy tabax lii la ñu gëm te fii la ñu ñaabar ñaabaree jëme réewum Sénégal lépp ak ci mel ni ku naan man la woon woon ni na fulaak fayda fi mu nemoon ne ci réew mi transhumance politique dafa mel ni nag nangootuñu ko ñett ci ay DG woon ci réew mi gannaaw ba nga xam ni président Macky ñàkk na dañoo tafu woon di yoot mel ni kuronu ci mur yi di yoot ndànk jëm ci président Diomaye ak Ousmane Sonko nag Pastef ci boppam kaay tëj ay buntam transhumant du fi naan a ñeex diggante Baara Ndiaye Mamadou Salif Sow ak Saliwu Keita ñi nga xam ne bàyyi woon nañ APR tàmbalee nag rogo jeeru président Diomaye depuis si Ousmane Sonko terewul ma ne la kay lañ leen ñamal able fayal laaxu jël seeni direction teg fa ñeneen le ak ci naan maan changement rek laas yéeni kaay naan maan ña changement gannaaw bu nu sooboo ci politique te tey jii defu nu génn ak jéego ne yoo yaay dañu yootu réew mi day mooy aamadu Ba Karim Meïssa Wade yéeni kaay bi naan maan booleel sa ñaari baaraam yi ngay joxoñee dendale leen sësal ñaari baaraam yooyee bu ne yéeni kaay bi naan maan mooy kiif kiifa Amadou Karim nag mooy ñaari baaraam yooyee kiif kiif ay yu baax baax lan ñoo xam ni am nañu compétence su jiite réew mi waaye audace politique ci boppam moo leen manqué gannaaw ba nu sooboo ci làngu politique gi ak tey amuñu benn jéego bu ñu def defal ko seen bopp mën a fëgg dënn nag ne lii maa ko wax ci réew mi wala lii maa ko def ci réew mi yeble rek yónnee rek te yóbbante galgal ubul làmb yóbbante say waxit ka koy wax la ni jàpp ne moo ko wax yow mi yóbbante soo bëggee di nga wax ak sénégalais yi Karim 2015 ak tey ma nga ca Doha mësta ñibbisi ci réew mi yebal gan ko yebal ca dowaa googee toog fa nekk ci whatsapp am di yeble ak di digle yebbi communiqué yoo xam na daanaka léegi sénégalais tàyyi nañ ci jël ndono baayam gii di appareil politique bii di parti démocratique sénégalais def koog lam toog fa mu toog di yeble ñu koy jëfal booba nag parti démocratique sénégalais ma ngay faatu ndànk-ndànk ñu bari ci parti bi di ko bàyyee Karim ndax daanaka Karim moom projet politique ngir réewum Sénégal amu ko yéen kaay bi naan man ñëwal am daanaka ci politique moom doorul waxul paasul fayul xeexul moom Amadou Ba attewul xeex fekkewul sax fu ñuy xeexee ñu koy jori xeer fu ne Amadou Ba galgal nañ ko façon bu ne ci réew mi patt googee nag mu jàppee ko ab arme daanaka mooy jël leadership am tàbbal géej te lii nag dëgg-dëgg moo ko ñàkkloo élection présidentielle yi diggante parti ba mu bokk ak itam ñamu noonool ci wàllu politique ñépp di jori xeer léegi ndam moom foo koy jëlee xam nga la waykat wane woon ñàkk jariñu fii day la réew mi tollu politique gi xeex ci ba am ca ndam wala ñu toog fa ñuy toog di yab la ñu leen di defal ndam moom dañ koy dégg rek l'info yéene kaay naan ndama ngi direction générale bu police nationale am ko projet bu yees bu police bi ak soppite moom commissaire Ndour naan ñu bëgg police boo xam ne dina jege sénégalais yi bëgg police boo xam ne lu fa waaye wuti dina yomb ci moom doctrine bi ñu xoolaat ko tàggatu gi waaye tam xeex lépp loo xam ne ay délinquance la ci réew mi l'observateur ñanga ñaabar ñaabari nag jëm ci projet boo xam ne tey tax tuxum yàmbaa deesu ko yóbbooti kaso ci réew mi Assane Seck njiital Ligue sénégalaise bu droits humains ma nga naan daanaka ci àdduna wërngal këpp ku ñu fekk ngay tux yàmbaa dañ lay teguk daanu ko par Mame Matar Gueye naan ña nga jëm ci foo xam ne ci daganal tuxum yàmbaa mi ci réew mi la commissaire Cheikh na Kayta naan bu ñu jëlul ñuy tux yàmbaa yóbbu ca kaso di leen fay loo koppar ña ngay ubbeeti beneen buntu ger ci réewum Sénégal tribune yéene kaay naan boobu jafe yaa ci réew mi muy xeexoo goo xam ne am na qualité végétale Sénégal ak société bii di nouvelle ville ñooy xeexoo ca Kër Moussa benn ci liggéeykatu qualité végétale Sénégal am cay gaañu gaañu nee na nag ay nervi ñoo ko def gannaaw seenub xeexoo le point ak ci naan maan boobu dee hémodialysé yi ci réewum Sénégal ña ngay dund jaxannama ci réew mi artu nañoo artu ba maar day taali fi na nag ña ngay woo njiit yi ñu wax ci diggante Thiès Saint-Louis jaarale ko ca Touba ña ngay dund loo xam ne maar day taali ci réew mi la ñuy nittali yéene kaay bi naan maan ku ko dégg sa xol tooy liste d'attente yi mel ni maar day taali ci réew mi dañuy xaar a xaar ñoom malade yi nga xam ne ñoo war a dugg ci liste yi ngir jali suñ fay dërëm ba faf yàlla ñu bëri ci ñoom dañ cey mujjee ñàkk seenu bakkan moo ne day yéene kaay bi naan maan ay générateur mi ngi ci réewum Sénégal bari générateur yoo xam ne ñi ngi ci biir centre de dialyse yi lu toll ci ñetti junne juróomi téeméer ci ay doomu aadama mën cee def dialyse weeru yàlla sàkk te waxtu wii ñuy wax ak yéen téeméer ci ay doomu aadama képp la ñuy jël en charge tey jii nag jafe-jafey ressources humaines daal di am bloqué la nga xam ni nag moom mooy jëfandiku générateur yooyu ay néphrologue ak infirmier yu doy nekkunu ci centre yi ñu tàmbalee nag jël jalis bi def kook business privatiser ko di ko def ci clinique yi ndax boo ko deful faatu kon boo amul pexe faw nga fay te fay googee nag mooy indil jaxannama malade yi ndax ku amul loo faye toog sa kër faatu ñel la ñoom malade yi nag di wax naqar gi nekk seen xol yi wallu wallu goo xam ne nag ma nga tàmbalee ca malade ya waaye tam wallu goo xam ne tey jii ma nga teer si si nga xam ne ñooy def business ci kaw ñiy def jalise tribune sport naan maan ak lu mën a am ci réew mi jàppal ne ni ki démb diggante Sénégal ak RD Congo moom Congo moomee dafa ñëw ci réew mi frustré daanaka Sénégal jëli fig nul boo xam ne métti na ci xol yéen kaay sport des médias bi naan maan moom saajo Mané day na nga xam ne noonu la nu joué ma ngi koy naqarlu Sadio nag tàmbalee ko ñaan jàmm te yendoog